gars yi tey maanaam tey vidéo bii may def nii vidéo bii may def nii yow mii di ma seetaan nga xam ne danga nga bëgg man njool ah yow mii di ma seetaan nga xam ne da nga may bëgg billaahi wallaahi tallaay maa ngi kontaan si yow bu baax maa ngi lay bëgg di la jox sa wàccuwaay di la nuyu di la ziar bu baax a baax baax a baax a baax parce que billaahi wallaahi tallaay man njool nekkuma dara du ma dara mais da ngeen maa jël teg ma fu nga xam ne man yegguma fa loolu rek yëg-yëg la ak cofeel yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax di leen bëgg di leen jox seen wàccuwaay bëgg ngeen ma bëgg ku nga xam ne am na si ñu nga xam ne ay kilifa ay man dañ may fekk ba kolobaan di yëgati seen alal sax di moo ko jox te man sax billaahi wallaahi ay bëgguma sax ku may jël ay alal di ma ko jox ay dañoo may ay affaire yi nii parce que lépp lu ñu liggéeyal suñu bopp lañ ko liggéeyal. te seetuñu si ku ñu fay wala ku ñu may wala dara xëy na gars yi da ngeen a baax rek am yërmande si man ma leen di sant nag di leen gërëm di leen ñaanal may nuyu tamit ñi nga xam ni man dañ maa bañ parce que Sénégal la ñëpp mënuñu laa bëgg ñii dañuy bëgg ñiy bañ mais ñoo ñi nga xam ne dañ maa bañ man njool billaahi wallaahi tallaahi man bañu ma kenn bañu ma kenn xëy na lépp rek liggéey moo ko laaj ma leen di nuyu tamit di leen ziar rawatina nag ñi nga xam ne dañ maa bëgg man njool yéen a moom vidéo bi man njool bu ma ko mënoon ku si ne dama lay fekk fa nga ne ni la jàpp sama loxo nuyu la parce que jaral ngeen ma ko li ngeen ma bëgg benn barki Seydina Muhammad maa leen gën a bëgg mboolem ku ma bëgg rek man maa ngi lay bëggee di la ziar di la jox sa wàccuwaay bu baax di la kontaane parce que lii amoon kolobaan maanaam ay waxuma ay million personnes sax daanaka daanaka laa wax. jot naa leen ndax ñu ma ñu ma saw mu leer la ni loolu cofeel la kon gaay yi man njool mii nga xam ni duma dara ngeen jël ma teg ma fu kawe maa ngi leen di ñaanal di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax di ñaanal président Bassirou Diomaye Faye mu sell mi di ñaanal président Ousmane Sonko mu sell mi monsieur le premier ministre yàlla na yan bi oyof ba li ngeen yéene réew mi yàlla def ko si barke Seydina Mohamed ndax xam nañ ni réew mi day neex incha allahu rabbi kon gars yi combat mu ngi doog a commencé nañ leen jàppale. président Bassirou Diomaye Faye mu sell mi ak suñu premier ministre Ousmane Sonko mu sell mi ñu doxal réew mi ca kaw ca kanam ñun à vie lañ ànd ak ñoom kenn mënuñoo jaxaseeg ñoom kenn mënuñoo tàqaleeg ñoom man li may wax rek man jool dama jël sama jëmm ak sama deret ak sama ruu ak sama xol jox ko président Ousmane Sonko mu sell mi ak président Bassirou Diomaye Faye mu sell mi kon gars yi nañu doxal ngi dem amul seral de man njool à vie kon gars yi maa ngi leen di ca kaw ca kanam.